jërëjëf xam nga euh, ren dañ ni Sénégal dana taw taw bu bëri dèjà gis nañ ko ci ndar euh, taw na taw na taw yi xaw bëri tuuti te euh, dëgg na daaw heure bi tawagul woon donc loolu dafa wane ni taw dana bëri donc bu taw dee am ndox dana bëri su ndox dee am aussi donc dafa am gox yoo xam ne ci ndar dafay inondé donc day bëri ndox ndox mi yàgg fa donc te day indi loraange ci population bi loolu nag moo defte tey jii ñu ne ñun ren gi dañuy dajal suñu ay doole jënd matériel bu bëri ay ci wàllu moto pompe def ba nga xam ni bu maanaam taw ami inondation nar am ñu mën a yëkkati ay jeunes jox leen jumtuwaay yi dem jàppale ak kam loolu moo tax ñu jënd ay moto pompe di nga gis ay moto pompe yu bëri la moo tax ren ñu am plus de maanaam fanweer moto pompe ak benn yu mag yu ndaw de telle sorte que ni quartier bu nekk wala quartier yu bëri ñu mën a taxaw ci nu mu gënee gaaw. loolu nag nekk lu am solo dépensé lu million pour mën am matière bi mel lu équipe en place équipe bi dana am ñu leen superviser ñu leen superviser ak ñoom Pape Ibrahima euh, encadrer les jeunes ñu mën déployer au niveau des quartiers ñu seet matériel ñu leen mën a quartier bi quartier pour que bu taw bi ñëwee rek inondation bi ñoom daañu mënu a jóg dem rapidement mën a intervenir pour soulager les populations parce que ndar moo tëdd noonu dafa am quartier yoo xam ni ci yoon sax nit waru foon dëkk parce que dëkk ay quartier ndox la mais malheureusement am na mais comme loolu am na léegi indi yenn solution provisoire muy solution maa xam pompage bi en attendant ñu régler wàllum assainissement gis nañ ci wàllum assainissement état bi def na effort yu am solo maanaam bu ñu nee le programme des dix villes tey jii ndar bénéficié wu ñu milliards travaux yi tàmbali na fii lekk at incha rabi dana jeex bu travaux yi jeexee xëy na ci wàllum inondation am na quartier yu bëri yi nga xam ne loolu dana saafarawu surtout au niveau de Pikine yeneen quartier yi des yi boo seetee ginnaaw raay wala Médina Course wala Jaminaat quartier ci yëpp il faut que ñu def restructuration de ces quartiers là pour wàllum assainissement bi war a mën a dox donc loolu ñu ngi ciy liggéey ak état bi de telle sorte que ni daal bu programme yi ñëwee daañu fexe ba quartier yooyu boole ci ay des quartiers comme Darou am na côté yoo xam ne côté cité ñax la en tout cas quartier yi amul assainissement eau de eau pluviale ak eau de eau usée ñu fexe ba ñu defal leen assainissement de telle sorte que ni maintenant bu taw amee même lu mu bëri bëri bëri ndox mi dana évacuer wu donc loolu programme yi ñëw la ñu ngi ciy liggéey bu baax ak état bi sàkku ndimbal tàllal loxo pour que ñu mën ñu ko réaliser mu gën a gaaw mais lu fi lu nu këtt na jonn mooy fexe ba nga xam ne en tout cas hivernage bu nii muy installé woo ñu fexe ba ndox mi du tàkk ndox mi nag lu koy ñàkk tagal mooy di pomper rek bu tawee tey nga pomper bu ëllëgi nga di pompe, di pompe. de telle sorte que ni maanaam ndox mi du du baare nit ñi du indi loraange du nekk ci kër yi de telle sorte que nit ñi duñu mën def dara donc loolu moo tax ñu mobiliser wu davantage comme lu chaque année dañ koy def nag mais xëy na gën a bëri parce que comme ren taw bi dafa bëri dafay gën a bëri bu neex yàlla donc ñu ne nañu teel a jóg wut suñu ay équipement loolu moo waral équipement yi ñu indi ko euh, mettre mettre à la disposition des jeunes pour que liggéey bi gën a mën a dox loolu aussi bëgg nañu lancer un appel à l'endroit des populations parce que bu ñu indee équipe ñu ñëw di manque ndox mi seen biir gox ci biir koñ dañu ñaan les jeunes yi dëkk ci koñ boobu la wala population yi dëkk ci koñ boobu la ñu jóg ñoo jàppale jàpp ci dugal ci seen loxo jàppale leen ci liggéey bi parce que moo gën ñii ñëw dëkk benen quartier ñëw di leen jàppale ñay jóg croiser seen bras di seetaan loolu vraiment loolu du luñu ñu bëgg du luñu gënal nañu def action de solidarité action citoyenne ku nekk jàppale jàppale jàppale moromam bu ñu nee jàppale ku nekk jógee jàppale morom yaakaar ne liggéey bi dana gën a dox te dana gën a gaaw parce que lépp lu ñu ci askan bi moo tax ñu koy def askan bi moo ñu tax a jóg te njëriñ askan bi dong la ñuy wax waxuñu leneen